asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu di muslu ci seytaane di wax auzu mina seytaani rajim wala xawta wala xawata illa billahi azim di nuyu lébu gépp ndax ñoo ma tax a jóg tey sama mbokk lébu yépp maa ngi leen di nuyu commencé ko fii ci ndakaaru ba fu lébu gi yem te buñ ma toogee fii tey sama toogaay bi damay présenté wu man maay kan maa ngi tudd faatu mbay Diagne di doomu El Hadji Bassirou Diagne Marème Diop fa grand serigne de dakaar bi fi jóge ak jigéen ju baax duñ naan ajaratu awan joon Mati Mbeng may lébu ci ndey di lébu ci baay léegi nag euh, sama toogaay bi dafa nekk cris de cœur cri de cœur bi mooy ñun lébu gi dañooy commencé dañu faagaagal ndax yaay laa nag dama jur ay doom dëkk nag ci pénc mi ñetti pénc yi fi ñetti ñetti village yi fi jafe fi mu ne nii am jafe-jafe ci ndakaaru dama cee bokk mu yoof gi di mbengeen sama kër maam ndax li bu mën nga ko doon ci ndey mën nga ko doon ci baay man nag tey su ma toogee sama wàllu ndey ma tax di wax ndax day lebu ndakaaru fii ma bokk mbengeen yoof bokk ngéyeen fii ci am kër ji Baay Moussa Gueye bokk fii Ngor kër Jibril Ba mu bokk ak sama yaay baayam nday way juram bu jigéen ak sama way juru jigéen bu yaay bokk nday ak baay mati mbeng at at ngóone mbeng la kon man su ma toogee fii di wax ci lébu gi dama day samay droit ma war koo wax di ko wax di jaale nag waa Ngor ndax sama toogaa bi tey cris de cœur la naxaru xolu yaay ndax réussite bi am ci àdduna jigéen a nekk ci gannaaw te ñun soxlawuñu ku ñu yàqal suñu réew mi nag ndax ñun Dakar rek lañu am balaa ñoo xam ne Dakar rek lañ am bu tabaski jotee ñëpp dañuy dem bàyyi ñu fi ñun dong nga fi des dëkk bi wéet lool waaye ñu wéttiwul konte waa Ngor nag maa ngi leen di jaale seen doom ji génn àdduna mooy ajaa Diallo dina yaayam na muñ ndax yàlla mooy dogal te lii amit métti na métti goo xam ne kuñ ne muñalit da ngay jullit rek war koo wax waaye bu dee naqar rek cri de cœur la ñun yaay jaaxle nañu wëlbatiku waat nag di wax waayu Yoof ak waa Wakaam it ñun ñun lébu yi surtout ñun jigéenu lébu yi ñu ngi seen ginnaaw seen yaay yi ndax nag yaay mooy koo xam ne kenn mënu koo weccee ndax yàlla dafa ne bàyyi benn yoon na yaay ñetti yoon kon ñun seen yaay buñ jaaxlee ñëw toog fii di wax ak population bi di wax ak président de la république muy lu ñu ñor nag man dama naan président moom lay njëkk waxal macha allah monsieur le président de la république Macky Sall. man sama wax ak yow day doon direct ndax tu es mon su ma nee tu es mon frère dina am ñu mu jaaxal waaye yow du la jaaxal ndax sama wayjur bu góor dafa nekkoon sa wayjur bu góor yow ndax bu réew muy metti ci diggante yàgg Ablaye Wade il était le seul bu am fit sol dàllam yeewi Ablaye Wade guddi ne ko na la bàyyi amaana jàppale gam la jàppale ba tey nga doon président kon ñu lébu gi fàtte wuñ la bàyyi wuñ la te benn libu bañu la waaye libu yëpp a mer ñu wëlbati ko waat nga ubbee sa campagne yoof tëjee yoof libu yi ñaanal la gunge la ba nga toog pale te ba nga toogee pale ba tey nag gëstuwoo libu gi ñun libu gi dañoo am luñ naqari sa gouvernement bii nga yor nga yor say ministre ba nga ca falee libu Ndeye Saly la woon ak Diouf saar ba ñu xëyee Diouf Sarr dafa def mucc liggéey bu mucc ay ñu xëy na Diouf Sarr nangam nangam nday Saly def jigéen boo xam ne commencé ko ca Awa Gueye Kébé Mantoulaye Diène Awa Gueye ba fii ñuy waxee Ndeye Saly jóob Dieng liggéey na fi lu jigéen mosut a liggéey ci ci ci ministre de la femme ndax nag lu nit ñàkk xam-xam xam-xam fekkee nañu démb ñu xëy suba teel wàcceeti ñun amuñu benn ministre sëb sëb sa biir gouvernement ñun lépp gi ñuy jooy loolu ñu xëy ci monsieur le président ngeen xëy. ne tey nangeen ngeen di nangu ay terrain Sénégal kuy tiitaru benn titre rek ngay def waaw j'habite vers les Almadies nangam nangam te moonte Almadies lépp yee ko moom ngor gi ngeen di tiitaroo ñun ñoo ko moom suñu alal la ñu xajal leen ci te ñun lébu nag ñoo def lu kenn musuta def boo ñëwee ñun ñu xajal la nga dëkk takkal lab soxna may la lam dëkkuwaay soo wëlbati ko def ñu noonu te ñoo bokk ci ci xeet lébu xeet yi gën a baax ci Sénégal parce que du ñu wor te nag ku dul wor rek gor nga ku dul wor rek gor nga ñun du ñu wor li xamul war ñoo gën a tranquille tam ci population sénégalaise ñun boo ñu tooñulee suñu géej la ñu xam suñu njaboot waaye du ñu mën a nag toog ci dëkk bii moom suñu réew muy ndakaaru gii ñu nekk xajal fi ñëpp nag ba capital mën fee sosoo ba yow ngay suñu président mën fee nekk ba mën fee am say ministre mën fee am yor nekk palais ñu di la accompagner mosoo gis lébu bu la contre ñun lébu duñ contre nguur suñu waajur yi ñu ko jàngaloon lébu du contre nguur commencé ko ci Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci yow mii mu si ñëw mu mujjee ñëw monsieur le président ñu mus di la jàppale nag kon bu fekkee da a falu yor réew mi di suñu président seetaan ngi bëgg bari te li ma jaaxal mooy ñun lébu bu dara mu sànn autorités yi dañuy génn ah autorités yi dañuy génn euh, euh, chef coutumier yi génn mais bii kenn ñemewul taxaw ci télé bi sax wax moo tax dama jooy sama wajur bu góor ba ndax lu mel ni amoon na fi ngor fii tey ñu def point des Almadies amoon na fi keroog xaaru président bañ koy yéene ko waa Ngor ñu ngi rayante gendarmerie dafa sol grand boobu ñëw taxaw ba mu taxawee gendarmerie dañoo rus ba arrêté kenn duurul bal kenn xaañul kenn kenn xeexul kenn mu wax ak population bi wóolutu ko solaat daalam wax ak président président tey waa Ngor fii ñu toog muy pont des Almadies ba jigéen ñi ku a fay lay say doom ñi doon ay médecin ñi doon ay seen seen suufu maam gii ñu nekk kon bu ñu toogee bañ ñun autorités yi ñemeetuñ jël parole toog wax ak président wax ko dëgg wax dëgg bi ne du xaste ndax ñun duñ la xas suñu la xasee suñu bopp lañu ñu xas mooy li ma la depuis le début tu es notre frère man personnellement parce que tey sama cause bi may wax cause yaay la ak doon lébu ci ndey ak ci baay nag te bokk ci dëkk bi nag te boo bokkee ci dëkk nag doo xaar luñ la boole da ngay bokk ci dëkk bi defar ni waa dëkk bi defar ndax man sama waju mu jël grand sëriñ jëlu ko woon pour defaru ci moom daf ko jëloon pour defar nit ñi mais dundoo yi may dégg mus ta jël xaalisu lébu mus ta lekk alalu lébu lu dul lu mu am jox ko jaam yi toog des yàlla te ci alalam ba mu dee kenn bindul ci Sénégal tàmm nañu ku fi def dara boo dee ñu xas sa njaboot ñun kenn duñu xas ndax sama waajur bu góor mës ta sàcc alalu jàmbur mës ta jël alalu lébu yi mës jël alalu nguur ànd ak ngorom te ngor googu nag ñun moom la ñu mooñee ba bu ñu gisee lu ñu jaaxal du ñu xaar ay ma sàmba ak ma dem ma ndax man tey fii ma toog toogeewu ma place wax naa ko depuis le début place u Serigne Ndakaaru déedéet dama toog place u doomu lébu ajaratu awa njoon mati nga jur ma ma bokk ci fukki penceeg ñaari ñëw toog fii di wax parce que li may wax nii wax bu am importance la parce que nag bu ñu seetaanee dina ñaaw ndax bu ñu seetaan lu tax muy ñaaw mooy lébu dañ ñaan xeexu njaago du jeex waaye xeexu lébu du jeex te lébu yi dañu mer ndax ngor gi monsieur le président camp gendarmerie jar na ay ay ay ay ay baket camp gendarmerie jar na ay baket te ngor am fu ñu mën def def camp gendarmerie bande bi ngeen def bu bande aéroport bii ngeen def mënoon faa def camp gendarmerie mën a jege ngor ak ngor aéroport bi ak ngor gi benn la ñu mënoon leen fa yóbbu ñu wëlbatiku xëy suba teel di xeex ak ñoom ci loo xam ne affaire u la te monsieur le président boo faloo nekk mu nguur da ngay xool la gën a métti ci nit ñi ña la jàppale woon nga jàppale leen ci mooy tey jii waa Ngor gi lycée bi ñuy jooy di ko ut dañ ko soxla dañ ko soxla parce que xale yi nekk su mu nekk bu ñuy jàngi seen waajur ay 3000 francs la ñuy jox par élève sa goûter sa passe aller retour amuñu ko conjoncture bi dafa métti ci Sénégal et c'est mondial adduna bi fépp a métti kon toll nañ foo xam ne booy jàppale wax dëgg neex yàlla waa ngor yi nag war nga wax ak ñoom parce que déegi ëpp na te seetaan bi nag dafa bari tey bu ñuy wax ay nit ñaa ngi tal ay defi ay marché ay nangam ak nangam mais du kenn ku taxaw rendre hommage à cette famille am amul kenn ku taxaw wax ci waa ngor gi dara loo xam ne lu am importance la te moonte sama waajur bu góor bu fi nekkoon amaana lii du am ndax yow xam nga ci dara ndax nit fulla ak fayda mooy doxal dëkk ak sincérité waaye bu ñu bëggee nekk ci poste yi di utum alal di utum koppar di topp titre maay diw maay diw te matoy woo diw yàlla nañ ci yàlla musal te président ñaan dañ la bëgg bëgguñu la de ndax li bëgg da nga fal ay ndombal tànk ñi nga fal nag est ce que ñoom ñu ngi def seen liggéey ni mu waree parce que nag lii doy na waar doy na waar torop torop torop te ku waxul da ngaa jurul doom ku waxul da ngaa yori responsabilité te ñun nag dañuy wax tax dañoo yori doom ndax waa ngor yi nag jógal seen affaire président benn école lycée lu day ni ngor village bu day ni Ngor amul lycée ngay xëccoog ñoom ñuy xëccoog gendarmerie di xëccoog ñoom ba bal di ci takk ba bakken di ci rot ndax benn lycée ak sagarub teenee on se regrette monsieur de président te yow da nga ne da nga entamé dialogue mais président kalaa tal dialogue nekk si jàmm te nag da nga liggéey Sénégal man je ne suis pas là pour te jeter des fleurs déedéet dinaa wax dëgg gi am da nga liggéey Sénégal lu fi président mës ta liggéey man tey ku ma dégg may wax ci yow te xam ma li ma wax sax dina ko jaaxal parce que da nga liggéey Sénégal nag def fi nag liggéey bu mucc ayib nga war ko nag jariñoo ñu jariñoo ko ñun ñii kon duñ toog ba tey nga defar ba dëkk bi baax ñu war a yàq lépp ci ay détail ci ay mbëggee nafsu nafsu nit bëgg-bëgg nit ndax bëgg-bëgg nit weesuwul barki démb Cheikh Yérim sekk du fekk ndaay guy lakk bu ci yokk xal toog ci télé bi en plein jour boo xam ne ñu ngi rey doomu jàmm nga taxaw naan waa Ngor dañu leen war a génnee utal leen village bu ñu dem nangam nangam ak nangam c' est injuste et incorrect te monsieur le président ñii lay accompagner yëpp ay nit ña yoo xam de merci léger lañu du ñu nit ñoo xam ne sax yow war nga taxaw ak ñoom di ànd ak ñoom ba ñuy taxaw di la tiitaroo ndax Cheikh Yérim Seck kat lii mu def démb. dafa ñaaw. bu xalaatee bay toog ci télé bi ñoom ñu xajal ko ba mu dëkk may ko mu dëkk ñuy ay voisins. mu wëlbatiku naan dañu war a génnee. dafa am wax bu nekk sa ak heure am ak bésam ak jour am et je regrette c'est pas beau c'est pas gentil kon lii laa amoon man lu ma lay wax sama cri de cœur le président di la wax ne lébu gi kontaanuñ surtout ñun yaay yi surtout ñun jigéen ñi surtout ndaw yi te ndaw nag moo yorum réew foofu laay wëlbatikoo nag di wax ak sama jeunesse su lébu yi commencé ko ci waa Ngor yéen waa Ngor dama am ci yéen ñaari cër ndax Ngor ku ko xam xam ni dëkku li ci ëpp ci population bi ay xaadir lañu. ñun yaakaaruñ kenn ku dul Cheikh na Cheikh Sadou ndax premier jour xeex bi bu amoon boo leen fekkoon demoo leen Nimjaat kon keroog gendarme du génn Ngor ma wëlbatiku waat nag di leen ñaan nag njekk njekk gi ma leen di ñaan en tant que yaay en tant que cousine en tant que bokk ak yéen tarixa en tant que njaboot parce que yéen lañ yaakaar suba pour ngeen doon ndaw suba yi te boo leen bëggee doon ndaw suba yi day doon li ñuy li ñuy wax naan jeunesse bu sain jeunesse bu conscient parce que da xam ne ñun seen yaay sonn nañu bëgg nañ suba ngeen doon ci président yi doon ci ministre yi doon ci chef doon ci ci ci entrepreneur yu baax yi nekk ci dëkk bi te boo leen ko xeexee seen ndaw yàq seen jeunesse yàq seen àdduna yàq seenum njàng ñuy dem ci kaso ba ñii dee ñun yaay ñooy perdant ñun yaay ñooy jooy ñooy am naxar kon sama cri de cœur bi may wax ak sama ñaan bi ma ñaan yéen waa Ngor laay ñaan ne leen maa ngi rëccu nag seen maire bi li mu def ndax li mu def c'est irresponsable yow boo dee ndaw ñu yónni la nga war a gisanteeg président soo demee ba jàkkaarloog président na nga naan président lii la ma ndaw yu yónni at waa dëkk ba bu la président neel def nii balaa ngay joxe benn accord ne ko may ma ma delluwaat wax ak waa dëkk ba su ma paree ñëw ak yow waaye doo dem def ci fefti fefti on regrette fefti fefti boobu wuñ ko 100 pour cent bi lañ soxla mooy suñu terrain bii ñu def ko école xale di fa jàngi jee kon yéen waa dalal leen seen xel man mii seen yaay de sama cri de cœur bii président dina ko dégg. te bu ko déggee dina xool bu baax a baax a baax a baax liñ ko wax ndax président du jaay nit rek la te xol la yor jullit la te yéen nag dalal leen seen xel ne yéen seen lii ngeen di kaas di ngeen ko jot bàyyi leen sànni bi bàyyi leen xeex bi dal leen ñu rek la lii liñ ko war a lekk leen ngeen jot li ngeen jot fi ngeen ko war a jotee loolu yéen moom laa di wax yéen waa Ngor di wax waa Wakaam tamit ne ñun lébu xamuñu lu dul mbokkam nit lébu lébu mbokkam la xam yéen ngi jàpp ci xeex bi te li ngeen di jàppee ci xeex bi gis nañ ko yéen itam ñu ngi leen di jëfal di leen wax ni léebu amul lu dul mbokkam wane ngeen ko tey di ko wax waa yoof ndax démb benn vigile nga fa dee par accident di liggéey wàcc dem di jëm këram ñu oo ko ne ko jasi jabar mi ngi feebar mu dem di jëm këram ñu rey ko ci yoon bi jaawale ko si ñu jaawale ko si ñu doon xeex ces erreurs là deret ci di tuuru fii mën na ñàkk te lépp nag yow monsieur le président yow laa koy vraiment adressé kon yéen itam waa yoof nañ leen dalal xel ñu bàyyi xeex bi ñuy xeex nii arrangé lii suñu côté nag te arrangement bi ñu arrangé amul benn faveur bu ñuy defal état li ñu arrangé rek ñun lébu gi ñun li ñu arrangé te li ñu arrangé bu ci yàlla àndee dinañ ko am mais damay ñaan ñu bàyyi xeex bi bàyyi rayante bi bàyyi agressivité bi am ni ñu régler problème bi une bonne fois pour toutes may remercier ñëpp nag di wax ne sama wax yi ma wax bu dee am na ko mu dépassé wala ko mu naqari na tendance wara pour clan dama bokk ci lébu gi dëkk ci dëkk bi jur fi njaboot am lu ma war ci dëkk bi ba tekk dara ci dëkk bi kon am na loo xam ne soo amee war naa ci sànni sama grain de te lii ma ci wax na cri de kër la du sax grain de sel cri de cœur la pour mu yegg ci président mu gis ko xam ne ñun ñii di lébu gi kontaanuñu ci moom amul nag lébu bu kontaan ci yow bu la ko waxee bu la ko waxul dinañ la gaaral ay kaar dinañ la tàccul dinañ la feccal waaye kontaanuñu de ndax nag président lébu gis ñu yokkute de te ku fi nekk xajal nañ la ba nga tedd te bu leen ñu tedd dil nag ndax yàlla teddale tedd diwul ñu ñun dañoo bokk ci ba ñu xuree si nekk ci xeet bu noble xeet bu tedd xeet bu baax xeet bu yiw lébu histoire nga koy waxal te histoire boole wuñ ci jàmbur seen biir kër mën nañu rayante ba ñëpp na rayante nañu ñu ne aywa ñu xëy àndaat juboo kooku lébu seen biir la waaye ñun xataluñ kenn bu dëkkal ndakaaru fii kenn doyee lébuy sonal nañu contraire kon nag ñu ngi lay wax ne la nga bàyyi ñu xel maa ngi lay gërëm nag di la sant ndax wax dëgg neex yàlla yaay le gardien de la constitution yaa yor dëkk bi yaay suñu li ma la waxoon depuis le début yaay suñu càmmiñ yaay suñu suñu kilifa nga bàyyi ñu xel ñun lébu gi te nga dem ñu dimbali ci waa Ngor gi nga arrangé ñu problème bi alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf maa ngi lu ñu ñëpp asalaam